fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di wàccee ku nekk wàccuwaayam di leen jotal tim nuyoo alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xafidahullah waraa di oo nit ñi ci jotaay boo xam ne oote woon nañ ko fii ci Medina alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane jiite woon ko tay jii ñu ngi koy oote at fële ci Dakar ki koy jiite mooy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ridwallahu waraa ñi ngi koy defee ci King Place Méridien Président le 28 ci 9h ba 13h ñi ngi oo mbooleem taalibe yi nga xam ne ni euh, payeb Cheikh Ibrahim itteel na leen te na ñëpp ñi ñëw uy si boobu nga xam ne du dara lu may eehaat itte yi ànd liggéey ci tool bi nga xam ne mooy tool yi Mawlana Ibrahim radiallahu teg ko it ci ndigalal yàlla tabaraka wa taala wa taawanu ala albirri wa wala taawanu ala al ismi wal wax ne na dimbalante lu baax ak ci ragal yàlla bañ dimbalante ci bàkkaat ak noonoo teg ko it ci xadis rasulillahi salallahu alayhi wa sallama al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baax baadan ku gëm yàlla ak ku gëm yàlla niñ mel ñi ngi mel ni benn tabax bi lenn li mooy jàpp lenn li moo tax ñi ngi oo mbooleem taalibe yi ñu ñëw ci daje boobu nga xam ne ñu ngi koy def pour levée de fonds bi nga xam ne moom lañ sos pour xidma xadarati cheikh ibrahima radiallahu anhu ñu ngi ñaan ñi àgg ci si jàmm te yàlla defal ñun ñëpp tawfiq bañ mën a wane suñ taxawaay ci pays bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñëpp ñoo war a ànd liggéey ko ñu ngi oo kenn ku nekk ci turam waaye ñu ngi oo muqaddam yi di leen oo tim ñi ñëw ànd ak seeni mbooloo ñëw tim pour manifester seen mbëggeel ak seen taxawaay ci pay bi yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla eh, defal ñu tawfiq nangul ñu mboolem yëngatu yi def ko muy yàlla nekk ci yàlla te may ñi am ci ngërmaane Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu